asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi asalaamaaleykum mbokk gambien yi yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di la wax ne yéen ñi déglu rajo defaral suñu bopp rajo bi jox xibaar yi doomu africain yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Italie. mbokk yi ñu ngi jéglu jéggalu nag ci bés yi yëpp dëgg yàlla di xaar xam naa ni ñu bari ñu ngi xaar xibaar yi jóge ci rajo defaral suñu bopp nag ci mbirum immigration bi ci mbirum sédatoria bi xanaa rek di leen wax ne wax dëgg yàlla suñu xel ak suñu xelaat yëpp ñu ngi ko jagleel eh, bureau yi nga xam ne

wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne moo di am njëriñ ci lañ nekk nag di gëstu di ci tukki di ci dem di ci waxtaan mbokk yi xanaa rek euh, ñu ñëw rek indil leen euh, wax dëgg yàlla beneen doxalin ci mbirum bu bees boo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ne euh, loolu ñuy wax commande muy permis de séjour bu six mois yooyu dëgg yàlla gis nañ ne questura yi ñu ngi ciy joxe bu baax. ñu ngi koy doxal bu baax ba noppi nag di ci joxe wax dëgg yàlla euh, séjour yi tey fii ci Milan comme niñ la ko waxee première cas bi ñu fi joxoon Milan la <laughs> fi mu nekk nii ñetti xale yoo xam ne wax dëgg yàlla xam nañ leen ñu jaaroon ci ñun yàlla def na tey jot nañ seen permis de séjour recherche d'emploi boobu nga xam ne moo leen di may nga wuti liggéey di wax ne procédure bi gën naa leer ñu ñëw faram-fàcceel leen ko moo di ne encore une fois pour les demandeurs d'asile nag la ñuy wax waaw mooy képp koo xam ne sa permis euh, musul ngaa liggéey ci tool waaw képp koo xam ne nga Italie amoon fi permis de séjour façon permis de séjour presque yépp nag la ñuy wax xam naa ne suñu waxtaan dañ koy gën jagleel demandeur d'asile yi parce que mooy ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo mooy moo ci gën a euh, euh, bëri ñuy wax ne képp koo xam ne mosoon nga liggéey ci tool walla nga liggéeyoon ci kër avant le 31 octobre 2019 loolu mooy condition bi njëkk bi te yàlla def na nga mësoon ci am contra de travail ak bulletin de paie loolu mooy condition bu njëkk bi mbokk yi waaye nag comme niñ ko waxee am na ab ministre bu wax ne képp koo xam ne mësoon nga liggéey au noir ci tool yi war nga cee mën a bokk te xam ngeen ne au noir démontré ko du lu yomb waaye nag wax dëgg yàlla képp koo xam ne mos ngaa liggéey au noir ci 31 octobre li may wax suma xalaati bopp la képp koo xam ne mësoon nga liggéey ci tool au noir wala ci kër au noir avant le 31 octobre te yàlla deful nga am datore di lavoro wax dëgg yàlla mën nga cee déposé mais soo ciy déposé ba pare ci biir te amoo kayit bu wane ne mës nga ko liggéey loolu ñuy wax autodéclaration muy autodéclaration personnelle bo xamné yow da ngay jurer sur l'honneur que mës nga ci ci euh te firnde yi nga ci xam nga bind ko ci demande bi wax rek yalla buntu bobu mbok yi mo dama ko from fàcce nii ki nga xamné moy ministre de l'agriculture te mom mo cooke woon mbirum ya bi ñu koy wax Bellanova Nova moko fi waxone ne képp koo xam ne euh, avant le 31 octobre liggéey nga ci tool mais au noir mën nga déposer ci kayit yi donc képp koo xam ne wax dëgg yàlla nekk na ci situation boobu te amoo benn datore de lavoro bu la mën a jël euh, pour régulariser la wax dëgg yàlla kooku bunt bu ñu ubbi la waaye mbokk yi deuxième condition bi mooy na fekk aussi ce permis de séjour di jeex après le 31 octobre ce permis de séjour di jeex après le 31 octobre wax deug yalla li moy mandarga yi ñetti mandarga yi ñetteeli mandar ñaari mandarga yi njëkk lay wax moy 31 octobre avant na la fait nga liggey ci titre, wala ci kër tamit après le 31 octobre na la fait ce permis de séjour di jeex après le 31 octobre 2019 léegi nak délai délai bi ñu yemal jeexe bobu waxuñ ko à partir de 31 octobre ba fan wax deug Yalla kenn waxu ko am yaakaar sa permis de séjour mu ngi jéx sax 2021 euh, muy permis de séjour lolu ñuy wax euh, asilo en général six mois lay durer mais gis nañ ne ci mbass mi gaay dinañuy joxe sax ba ba mot un an waaye nak képp koo xam ne rek sa séjour mu ngi jeex après le 31 octobre 2019 wax dëgg yàlla war nga cee mën euh, déposer waaw loolu mooy ñaareeli ponk bi ñetteeli ponk bi mbokk yi ñu dellusiwaat di ko wax mooy loolu ñuy wax renonciation euh, euh, protezione internazionale rinuncia protezione internazionale loolu fi mu nekk ni nii wax dëgg yàlla amul sikki sàkka lu leer la ndaxte ministère bi ci mboppam def nañ ci benn circulaire boo xam ne depuis le 7 juillet questura yi nekk ci dëkk bi yëpp jot nañ ko muy informative pour wax la ne soo nekkee ci protection internationale nan nga mën a def pour am ci séjour bi doo def dara lu dul lu ñu loolu ñuy wax renoncier euh, su fekkee ne sa avocat la wala renonciation boo xam ne directement questura ça dépend ci questura yi loolu moom nga euh, war a def kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla lii mooy li nga xam ne mooy ci mbirum euh, sénatoriat bi loolu ñuy wax coma doué muy immigré bi nga xam ne moo bëgg a déposer boppam séjour pour dem outil liggéey question bi nga xam ne nag la ci nit ñu bëri di wax mooy question euh, su fekkee ngay liggéey est-ce que da nga war a démissionner comme ni ma ko yàggee di wax man duma wax kenn démissionnel waaye wax dëgg yàlla euh, permis de séjour recherche d'emploi lañ wax moom ngay outil kuy outil nag nekkul ne da ngaa am kuy outil liggéey nekkul ne da ngaa am waaye nag xalaa kuliyaalin képp ku ci bëgg a démissionner xaaral bañ convoqué la ba nga waaj di dem mën nga démissionner su boobaa soo ko bëggee du nekk nekk lu ma neex nag mais nak suma xalaatu bopp dong lay wax nek luma neex waye su boba so demee Kestura da nga mën euh, euh, renoncer de toute façon ba nopi wone preuve yi ne liggéey nga ci tool avant le 31 octobre wala ci kër ba nopi boole ci loolu ñuy wax document yi wone ne wax dëgg yàlla euh, yi ko firndee ñaareel bi na fekk aussi ce séjour di jeex après le 31 octobre 2019 parce que képp koo xam ne séjouram jeex na avant wax dëgg yàlla loi bi boolewu ci boolewul ci mbokk yi donc loolu mooy lu ñuy wax coma doué xanaa dañuy ñëw rek euh, euh, li nga xam ne euh, ci permis de séjour yi moo ci ëpp mooy loolu ñuy wax coma uno coma uno bi mooy li nga ki nga xam ne dafa war a am employeur ba noppi employeur fay ci kees nguur gi 500 euros bobu mo ci ëpp d'ailleurs chiffres yi sax depuis quelques jours ci wane ne euh, loi bi commencé ba léegi ñi nga xam ne ñoo déposé euh, euh, nekk di ci portail yi ministère bi déposé jusqu'au 15 juillet ñu ngi 123 429 personnes waaw 123 429 personnes ñuy wax ne nag lavoro domestique moo ci ëpp téeméeri yoon parce que mu ngi toll ci quatre-vingt-sept pour cent demande yi yëpp mu ngi nekk ci lavoro domestique waaw euh, xanaa rek ñuy wax ne lavoro subordinato nga xam ne wax dëgg yàlla mooy euh, ñuy liggéey ci tool yi euh, agricole dëgg yàlla treize pour cent dong la ci nekk waaw la les quatre pour cent lii treize pour cent

ak campagne Lombardie ak campagne ñoo ci ëppale ci liggéeyu kër euh, ci liggéeyu kër waaw ci liggéeyu tool campagne waaw Lombardie moo ëppale ci liggéeyu kër campagne moo ëppale ci liggéeyi euh, tool Lombardie rek mu ngi ñi fi déposé lavoro domestique ñu ngi toll ci 28658 huit xeet gi ci ëpp nag wax dëgg yàlla euh, mooy mbirum kër la ñuy wax. ukrainien yi ñoo ci ëpp bengalais yi ëpp ci marocain yi topp ci waaye nag suñ gisee ci mbirum agriculture Albanie marok ak Inde ñoo ci ëpp loolu tamit wax dëgg yàlla gis nañ ne chinois yi nañ ci ëppee woon ci njëlbeen xaw na wàññeeku ñàkkul ne xanaa dafa am luñ leen dey ndaxte nag chinois di euh, liggéey ci tool wala domestique ñëpp xam nañ ne mbokk yi bëriwul mbokk donc loolu mooy chiffre yi. wax dëgg yàlla di wax ne ci mbirum permesso sei mesi bi moo ci gën a néew permesso sei yi ñu ko déposé gum ba léegi muy commando bi ma njëkk a wax ñu ngi toll ci cinq mille sept cent trente lii mooy chiffre yi xanaa rek dañuy dellu ci mbirum euh, sportello unico yi nga xam ne ñooy traité loolu ñuy wax coma uno bi muy euh, lavoro subordinato con di lavoro ñuy fàttali rek mbokk yi. wax yàlla mooy euh, lavoro domestique ak lavoro agricole euh, procédure bi ni muy demee maanaam yow soo defee sa demande ba pare ci internet demande bi ñetti service ñoo koy jot bi ci njëkk mooy questura muy ufficio immigration na questura ñoom dañ koy caytu xool ndax yow mosoo fee def lu ñuy aaye muso fe am yenn condamnation pénale yooyu yu diis yooyu euh, ñoom suñ ko caytoo ba pare dañ koy yóbbu inspectorato del lavoro mooy inspection du travail ñoom xam ngeen ne lépp lu nekk ci liggéey ñoo koy caytu xool ndax contrat bi nga xam ne euh, baax na ndax jaar na yoon ndax respecté na loi du travail ñoom suñ ko caytoo ba pare jottalil ko sportello unico ne nga xam ne ñoom ñooy convoqué nit ñi pour caytu mbir mi gis nañ ne nag wax dëgg yàlla euh, su yeggee foofu ci site bi da ngay gis ñu def une convocation ne maanaam loolu suñ ko defee daal mooy contrôle bi yëpp def nañ ko li ñuy xaar rek mooy définir convocation bi jàpp bés bi su boobaa yónnee. Euh, liggéeykat bi ak euh, employeur am ñu yónnee ko on convocation waaye mbokk yi doxalin bi bees biñ ci gis moo di ne déjà am nañ fi wax dëgg yàlla ay document waxoon nañ ko fii Novara province de Novara waaye yore nañ fi aussi euh, province de Cagliari Oristano waaw bureau bu Oristano yore nañ fi euh, document bu jóge aussi préfecture bu Ferrara muy officiaux immigration yi ci dëkk yooyu yore nañ fi tamit wax dëgg yàlla euh, province de Foggia ñoom it muy officiaux territorial préfecture bu Foggia ñoom li nga xam naa ne mbirum Covid bi euh, yàq na programme yu bëri ci préfecture yi parce que bu Foggia ñoom wax dëgg yàlla dañ ne. képp koo xam ne rek mm, euh, war nga fi ñëw da nga war a demander rendez-vous ku amul rendez-vous doo fa dugg foofu sa préfecture ba léegi nag mbokk yi euh, préfecture bu yi kayit yi nga xam ne moom la ñuy laaj mooy euh, carte document d'identité datore di lavoro ak travailleur bi su ñuy wax document d'identité moo nekk di d'identité pour datore di lavoro waaye pour la pour travailleur bi moo nekk passeport am wala loolu ñuy wax document équivalent te suñ consulat yi di ko joxe mu nekk loolu ñuy wax euh, euh, déclaration d'identité wala concordance d'identité questura euh, bu Cagliari aussi laajte na loolu ñuy wax modèle 24 bi wane na yow fay nga ñoom dañuy bind biñu demandeurs yi wax leen nañ ko yónnee documents yi yëpp nañ ko yónnee via email pour compléter demande bi parce que demande bi xam ngi ci internet ay bind la rek amul benn kayit léegi nag kayit yi yi nga xam ne wane ne yow fay nga vingt F24 bi da ko war yónnee su fekkee ne tamit wax dëgg yàlla kiy liggéey balante la maanaam di garder mag moo xam ne mënalul boppam moom la ñuy wax personne euh, non autosuffisante Euh, na sa kon out kon euh, non autosuffisance waaw kooku wax dëgg yàlla dafay donné certificat ASL muy muy service de sécurité euh, nationale boo xam ne mooy wane ne kii nii kat dafa tële mënulul boppam dara benn certificat boo xam ne service yi nga xam ne ñooy toppatoo mbirum santé muy servicio sanitario nationale eh, ñi koy wax SSN ñoo koy joxe marque de bollo bi tamit laaj nañ ko laaj nañ marque de bollo bi waaw di wax ne rek këyit yi moom la préfecture de Calière di laajte eh, li nga xam ne nag moo ci bees Calière yi moo di ne xanaa dafa fekk ne beneen dëkk bu ndaw la bu nekk weti Calière yi bokk ci province de Calière yi ñu koy wax Oristano foofu moom au lieu de inspection au lieu de porter le unico bi moo mooy laajte mais inspection du travail ci seen bopp ñoom ñoo bind rapport bi nga xam ne euh, importance bi nga xam ne moom la inspection du travail am ci mbirum sanatoria bi moom ak sportello unico ça dépend des zones parce que nag ci mbirum immigration surtout nag ci mbirum nulla osta per lavoro dañuy gis yenn cas yoo xam ne parfois inspection du travail yi ñooy ëpp doole sax préfecture yi maanaam euh, sportello unico yi ñoo leen di ëpp doole parce que ñoom ñooy dogal dañuy jox sportello unico immigration yi préfecture rek ñu mottali waaye dogal gi li ci ëpp ci ñoom lay jóge loolu luñ seetlu la

bu euh, liggéeykat bi euh, ñoom laajte nañ déclaration des redditi bu euh, laboratoire bu datore di lavoro waaye aussi laajte nañ certificat pathologie bi wane ne ki ñuy toppatoo dafa dafa dafa dafa tawat kooku tamit laajte nañ ko laajte nañ tamit wax dëgg yàlla euh, F24 boobu nga xam ne mooy wane ne nit ki fay na vingt euh, cinq cent euros yi waaye aussi wane laajte nañ wax dëgg yàlla document boobu buy wane relation parentale waaw déclaration consulaire maanaam koo xam ne dafa déposé te mbokam bu ko jegee moo ko mottilil Euh, moo ko mottilil mbokkam bi mu jegee mooy ku ñuy wax frère wala sœur wala papa wala yaay moo ko mottilil nee nañ ñoom laajte nañ déclaration euh, buy wane ne euh, diw sa mbokk la muy déclaré consolare loolu ci consulat suñu réew yu mel ni Sénégal dañ koy toppatoo voilà mbokk yi wax dëgg yàlla lii mooy ñeenti préfecture yi ñu gis muy bu Ferrara muy bu Foggia Euh, Novara waxoon nañ ko fii waaye aussi muy bu yi Oristano ñoo ñu wax dëgg yàlla jot nañ seen convocation yi nga xam ne euh, def nañ ko yónnee ko euh, ay ay ñoo xam ne dañoo bëggoon régulariser ay travailleurs lii ñu ngi koy yónnee datore di labore yi wax dëgg yàlla ñoom lañ koy yónnee ci seen adresse e-mail pour wax leen ñu yónnee leen kayit yi suñ yónnee kayit yi ba ñoom ñu caytu ko gis ne kayit yi jaar na yoon su boobaa ñu convoqué datore di lavoro ba waaye ci ñetti kay yépp màndarga nañ ne fausse déclaration lu grave la bu ko kenn def faux document lu grave la bu ko kenn def di ko yóbbu ci préfecture yi parce que wax dëgg yàlla yàlla may na leen ñoom ay moyens yoo xam ne mën nañ déclarer euh, détecter bépp document boo xam ne faux la te suñ ko gisee boromam dinañ ko daane daane yu métti. maa ngi jégalu mbokk yi wax dëgg yàlla li mooy euh, xibaar yi di leen wax ne euh, loi bi ba le 15 août lañ wax xam ngeen ne le premier juillet le le le le premier août la waroon jeex waaye yokkoon nañ ko ba def ko le 15 août am na ñuy ngurumte ne peut-être dina dem 30 août ba 31 août waaye wax dëgg yàlla loolu leeragul. mbokk yi xam ngeen le 15 août fii ci Italie moom la ñuy wax 14 15 août moom la ñuy wax Ferragosto dëkk bi si feet la wax dëgg yàlla ba si feet la xam naa ne ñi nga xam ne wax dëgg yàlla am nañ possibilité déposer nañ def lu gaaw nañ def lu gaaw euh, euh, dem déposer ku ko amul nag ku amul condition nag jarul parax paraxi parce que déposé yore këyit rek pour wane ne déposé nga amul njëriñ li am njëriñ mooy déposé boo xam ne bu baax la waaye ñi ko ci am am condition requise yi nañ gaaw dem parce que bousculé bi xam ngeen ne dernière semaine sanatoria toujours day métti ñëpp dañ ciy bëgg euh, ñu doon hésité ñu doon toppatoo te parewuñ waaye nag looloo tax may artu mbokk yi rek ne képp koo xam ne sa lépp mot na gaawal nga dem déposer parce que dernière semaine bi day métti surtout nag ren mu coïncider dernier jour bi coïncider ak loolu ñuy wax agosto wax dëgg yàlla muy fête bu am njëriñ fii ci Italie suñu xel mu ngi dem suñ mbokk yi nga xam ne pont ba daan woon ca Genoa ca Ferragosto daaw jéeg te ñu ci bëri gaañu ci woon de personnes wax dëgg yàlla muy lu rafet gis nañ muy liggéey bi ñu ko defaraat mét ni métti woon ak liggéey bu rafet bi nga xam ne waa Genoa defar nañ ko ba pont bi ñu taxawaanaat ko muy lu rafet euh, ba démb ñu ngi ko doon testé dugal fa 50 camions pour seet ndax yu camions yu fees dell yu diis ñuy daw ci kaw pont bi pour xool ndax pont bi dëgër na loolu ñuy wax test technique yi moom lañ doon def. suñu xel donc mu ngi dem suñ mbokk yooyu ga mbokk yi gaañu woon wax dëgg yàlla yàlla def na africain wala sénégal sénégalais sax amu ci woon waaye nag ay mbokk dëkkandoor lañ fii ci Italie 42 personnes yi nga xam ne ñu nga gaañu woon foofu ca Genoa mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm di leen wax ne wax dëgg yàlla. lii mooy rajo defaral suñu bopp ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu parce que nag dañoo bëgg lépp lu ñuy wax rek mu nekk xibaar yoo xam ne teg nañ ci suñu bët mu nekk kayit boo xam ne yore nañ ko kon nag mbokk yi lii lañ leen di euh, euh, nuyoo di leen wax ne euh, yàlla na yàlla def jàmm que xale yi nga xam ne ñoo nekk ci camp yi ñoom ñëpp yàlla may leen kayit ñu libéré pour man développer wu fii ci Italie mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen di leen euh, joxaat euh, rendez-vous ba beneen yoon jërëjëf.